ngi noonu Diallo Kédougou yaa ngi noonu le président am na Diallo Kédougou am na Diallo Tamba am na Diallo Kolda mi ngi noonu mi exceptionnel accueil te comme ni ngeen ko gisee le temps d'arrêt qu'on a marqué il est long mais sachez que président Ousmane Sonko daanaka accès gul sax ni ki nga xamante ni moom moo di rond point bi ñu jógee tellement que il y a du monde Moustapha Mbaba Guirassy président Ousmane Sonko moom la ñuy xaar mu génn fii tout à l'heure fii ci terrain bi nga xamante ne moom mooy bayal bi gën a yaatu waaye bayal bi ni ngeen koy séenee xam ngeen ni lii fees na del del del del del ba je suis pas sûr que le terrain puisse accueillir le président Ousmane Sonko et cette foule immense qu'il a accueillie aujourd'hui ici à Kédougou. ni ngi noonu ñëw ngeen ñëw ngeen ñëw ngeen. mi ngi noonu Kédougou mooy accueillir le président Ousmane Sonko rencontre bi waroon na njëkk am ci rond bi waaye rond-point bi attanul nit ñi génn ñi finalement par mesure de sécurité ñu ni nañu progresser dem ci bayal bi waaye bayal bi nii ma gis daanaka fees na dell te président mi ngi agsi ça sera une nuit exceptionnelle ici à Kédougou une nuit exceptionnelle tellement que cette mobilisation musuma kaa des milliers de motos ont accueilli le président Ousmane Sonko li ko jëlee ci Buntu Kédougou sur dix kilomètres. Omar. Attention. Minana. Aroma. Aroma. Aroma.

Eben ben. Sana bot dina ko denc. Sana merci mi ngi noonu moo mobilisé tout ce monde là exceptionnel exceptionnel exceptionnel le terrain est plein comme un œuf mi ngi Exceptionnel accueil. Exceptionnel Monsieur Moustapha Mabagirassi. Waouh, waouh. ngi noonu exceptionnel lii mësta lii mësta ku mën def ku mën def ku mën na def Kédougou Ousmane Sonko population Kédougou ñoom ñëpp ñoo ngi ci Kédougou exceptionnel accueil Kédougou teral na président Ousmane Sonko Kédougou jël na paix mani lii ma sam Kédougou a mobilisé Kédougou a répondu à l'appel patriotique mi

mi ngi noonu Thank you. Kédougou kenn amul dégguma dégguma dégguma dégguma dama bëgg président Bassirou Diomaye Faye xam ni Kédougou ànd na ak moom pour jox ko majorité te loolu dama bëgg ngeen wax ba mu yegg pale kan ngeen àndal kan ngeen àndal kan kan ngeen doon xaar kan ngeen doon xaar DJ DJ DJ DJ déggu ma ne DJ. mais beneen camion bi beneen camion bi s'il vous plaît dañ koy ñaan dañ koy ñaan mu mu fay son. beneen camion bi dañ ko mu fay son. na fas na fay na fay boobu. ñaari son yi mënul ànd. na fay boobu na fay boobu. na boobu fay na boobu fay. na boobu fay. fayal ma boobu. fayal ma boobu. ay DJ DJ. yes. Tabaski Sodo loxo yi si kaw may seen loxo yi loxo yi loxo yi si kaw loxo yi si kaw est-ce que pare ngeen est-ce que pare ngeen kon ñu tàmbali liggéey bi wane ngeen seen bopp gis ngeen ko et sincèrement jox ngeen avertissement ñi des ci kanam mais it wane seen bopp par ak fi ñu jot a jaar kon Kédougou vous êtes in vous in alors ñu jox kàddu gi ñu jox kàddu gi l'honorable député Abdoulaye Sow mu présenter les investis du département honorable député vous avez la parole. caméra yi ñoo ngi nii caméra yi ñoo ngi nii. Kédougou a déjà choisi. Kédougou a déjà tourné la page. Kédougou va rentrer dans l'histoire. Kédougou a choisi son camp. Merci à la population de Kédougou. Merci à la jeunesse de Kédougou. Merci à tout le monde. Nous remercions la délégation qui est venue aujourd'hui nous rendre visite. Je m'en vais vous visiter, euh, présenter les candidats investis dans le département de Kédougou. Moi-même, Abdoulaye Sow, et ma suppléante Mariama Sadio Diallo, dit Et aussi vous présenter le candidat de Saraya. jamono mais Amdiata Diaby l'honorable Amdiata Diaby et sa suppléante Mariama Sidibé

Je commencerai mes salutations par notre tête de liste, Ousmane Sonko, et à toute la délégation de la Grande Caravane. Je salue aussi notre grand frère, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassi, qui est en train de tout mettre en œuvre pour que les listes, la liste de passé passe dans toute la région de Kédougou. Merci à M. Girassi. Mais je veux dire merci aussi à président, au président Bassirou Diomaye Faye d'avoir promis des dignes fils de Kédougou. Je veux dire Girassi, mais aussi à Ibrahim Gassama, un digne fils de la région de Kédougou, qui est aujourd'hui à la tête de la direction générale des mines et de la géologie. Merci à son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. waaye man nag damay commencer kaas léegi léegi suñu problème Kédougou léegi daa koy commencer. chance rek comme yàlla may ñu chance tey ñu ngi ak avec le premier ministre on va dire tous les problèmes de Kédougou ici. donc je je d'abord par la route de Fongolimbi monsieur le président on veut vraiment que vous nous aidiez à faire la route de Fongolimbi.

qu'aujourd'hui dans la région de Kédougou, l'activité principale c'est l'orpaillage. Et aujourd'hui on a vendu toute la brousse à des, qui n'exploitent pas ces sites-là. Il faut reprendre ces permis Vous allez donner ça à la population pour qu'ils puissent travailler. Parce que l'orpaillage fait partie des activités principales de Kédougou. Nous demandons au PM d'auditer les licences et les permis qui sont attribués dans la région de Kédougou pour redonner ça aux Kédougouins pour qu'ils puissent travailler. Monsieur le PM, je vous dirai aujourd'hui une chose. Le, product de Itato, c'est à cause de ce product-là, ce fameux product, que j'ai fait six mois de prison. Parce que c'est à la suite du procès de Mambagna, j'ai fait une publication et on m'a accueilli chez moi. Mais allez visiter le Prodac de Itato. Un projet qui est censé employer jeunes. Il a même pas 50 jeunes qui travaillent là Où est passé l'argent Donc, monsieur le PM, nous vous demandons de relancer ce projet-là. Parce qu'avec ce projet, Kédougou va avoir de l'emploi. Donc les problèmes sont nombreux. Je vous remercie. Que vive Kédougou! Vive la victoire! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kédougou est en train de vibrer. Kédougou est en train de vibrer ça devient compliqué de noter en tout cas man mënatuma noter ah Fadel Fadel noter léegi daal léegi daal ma ko quoi kon ñu jox un digne fils de cette région quelqu'un qui a toujours été présent dans ce combat Je le connais pour ses principes. On a partagé énormément de choses aux côtés du président Ousmane Sonko. Michel Guirassy ñoo ngi ñëw tey ànd aussi ak sa xarit la présidente Maïmouna Bousso ànd ak ki nga xam ni ci liste topp ci Ousmane Sonko muy Mbène Faye d'y représenter Maïmouna Dieye de Mojib qui est une brave et une très grande dame kon tàccu leen ki ñuy wajjo ki ñuy wajjox kaddu muy Moustapha Guirassy ministre de l'éducation vous avez la parole Sonko crazy salaamaaleykum waa Kédougou li ngeen doon xaar depuis 1960 jot na avec le projet avec le président Bassirou Diomaye Faye avec la tête de liste Ousmane Sonko le visage de va changer vous êtes partie prenante de ce changement da ngeen yàgg bëgg a changement bi mais fii cette fois-ci nguur bi yëg na leen Kédougou daf ci saf-sap daf ci saf-sap daf ci saf-sap te Kédougou day bokk day bokk par force day bokk par force Ousmane Sonko moo day bokk par force Fongolimbi dina bokk par force Dindi Fello par force Saraya par force ñoo ngi leen di gërëm di sant jëli leen seen carte jëli leen seen minute dugg leen ci kër yi dugg ci commune yi ci village yi bu leen kenn wax la képp

kan moo war wax ak yéen président Ousmane Kédougou Kédougou wane na boppam mais Kédougou wane na seen boppam ah. mais gars yi duñu nelawoo ah. c'est le président Ousmane Sonko qui va prendre la parole d'un moment à un autre fii ci Kédougou di fàttali Kédougou musul des ginnaaw mu jox candidat Ousmane d'abord ak candidat wu Salémata comme danoo nekk fii te yekk ci zone yooyu ñu mën a wax avant ñuy dellu ci président Ousmane Sonko. asalaamaaleykum chère population de Kédougou. Nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui notre président de parti, Premier ministre du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko. Comme vous le savez, depuis 2019, Saré a déjà choisi son camp, le camp de Pastef. De l'indépendance à nos jours, la région de Kédougou a été oubliée par les régimes qui se sont succédés au pouvoir. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons très tôt Donc ce qu'on peut demander au Premier ministre et au gouvernement du Sénégal, c'est de reconnaître euh, la situation de ces orpailleurs, euh, accorder à ces orpailleurs une relation particulière. Il y a l'enclavement total dans le département de Saraya. À Saraya, il n'y a pas de route. À Saraya, il n'y a pas de réseau. Donc c'est tous ces problèmes-là que nous demandons au Premier ministre. Voilà, sans tarder, je remercie tout le monde.